بسرى سورتي تينيا حسني على من دفاني الله كن فيكون الله كن فيكون بسرى بسرى سورتين له كلامي وسمتي ولا إله إلا الله بالبسارات دون الكديات نيا على من بفضل القيد يبديني وأرجي منه بسرى بسرى لا هو سمعتي وعلمي وبالبزارات دون الكديات مسلم على من من بفتح إني وأرتجي منه بزرا بزرا له كتابي وأخناني وأكرمني وكون أولي أنساني بساتيني أصلي على من بفضل من بفضل منه بسرى بسرى سرقتين عبلي بحرمة لابس الله أبدا يا خير مفت بكسف منك تبديني على من بفضل من بفضل أرتجي منه مزرع مزرع صورة الدين والعزا سرمدا للخير يا مليكي وسخ مرادي بالكافي والنور والعزا سرمدا للخير يا مليكي وسخ مرادي ظنوني كوف العزا سرمانا للخير يا يا مالك وسخ مرادي بالكافي لا إلا الله بالعزا سرمانا للخير يا مالك وسخ مرادي بالكافي والنون ناجيتني اليوم يوم نعودي إلى سلع قد بيت بقفي لا إله إلا الله أساس مدى للخير يا ملكي ملكي زمراني لك يا أكرما لم يزل برا وبخطبرا يا من لا إله إلا الله أفعالي مجنون لم يزل برا ومقتدرا يا من لا تبتون أفعال مجنون يا أكرما لم يصل برا ومختبرا يا من لا إلا الله أفعالي مجنون أكرما لم يصل برا ومختبرا ومختبرا يا من لا أبا علي مجنون يا من لا سمينانة خسدي أبا علي مجنون من أفعال أفعال مجنون يا من لا سنينة خسدي أفعال مجنون من أفعال أفعال يا من لا سمينا أفعالي مجنون من أفعالي مجنون يا أكرم لم يزل يا من لا من مجنون المصطفى المنون يا أكرم لم يصل مقتدي يا من لو تبت من الأفعال مجنون يا أكرم لم يزل لم يزل مقتدي متديرا من له جد في الأوعى أمال المنون دعوى أنت لي كل خير متراجيا بلا حساب ولا لوم وتخلي لم يزل مقتدرا والله تبدو بالنوى أولم نولي دعوان تلي كل خير دراجيا بلا حساب ولا لوم وتخلي يا زليل مقتديرا ما الله منون وجيلي اليوم كلا يفارقوني قلبني لا لا لا أكرم لم يزل مقتدرا من له تدمن المنون نباجني بل تزيد علما ومعرفة وجعل حياتي جرى الخير ممنون حلمان ومهربة للحياة أجرا خير ممنون أن لا النباتني ليلا تزد علما ومعرفة وجعل حياتي أجرا خير ممنون قلت زد علما وقريبة الحياتي أجدل خير ممنون أن النباتني بل تزدي علما ومعرفة وجعل حياتي أجرا خير ممنون أن النباتني فل فلتزد علما ومعرفة تخريبة وجه الحياة عجرا غير ممنون دكن ويروي سكر كان تبي سبال بدو يدي ويلا محمد دربي من يدمن سف سف يا الله سكر كان تبي سبال سبال بدو يدي ويلا محمد دربي من يدمن سف سف sappooy yàlla xayral wara weer wi sikar jant bi sabal bidiw bi siwati garab yi meññet mi ne sappi yàlla weer wi sikar jant bi sabal Seydina Muhammad sab sab sab xayral wara weer wi sikar jant bi bi diw yi si garab yi meññet mi ne sab sab yàlla weeru sikar jant bi sabaat bi deewoo ci Seydina Muhammad bi meññet meneen sab sab sab yàlla xayral wara fa Mustafa ci moloon boppam boobu ba boppam boobu ba te gëtëg miski gaa nga fay mate yàlla fa Mustafa timoloon boppam ba booba ba tey gëtë gëtë lu juddu yu góor jigéen juddu ca moom ma at nga magal góor ga yàlla atum góor jigéen judduwul jigéen ca moom at waaw waaw nga magal góor ga yàlla waay wute yaa ngay gëna soowo amam laa ilaaha illallaah taarix ba nag moo di amal fi li yàlla waay wute yaa ngay gëna soowo taarix ba nagu mu dee amal yàlla abi mooy at ma ña yem ya di wër ma bi kam ba tara abi ak yàlla ma abraha gaañi tàggat ña yam ya ya di batara ya ya Allah nabi mooy at ma abraha tay tàggat ña yam ya di wër ngir ma Nabi yam lam yadi war yadi war batara nabi mooy atma abrahatay àggat ña yam yadi war ngir mabi kaw batara abil arsi yàlla نبي خالت ملائكته رحمن يوم بدا مرنا بتربية المختار يا الله على الملائكة رحمن اليوم بدا فرنا بتربية المختار الله سيدنا محمد يتوير لتخو أنا خليل رمي وير مت سكي الله لتخو لتخو خليل يدي دخ جرمي وير لدار mat sëkk yàlla ma bi màggug bisam ma bi weer ci doon aram la la di am ak at ma dimlim fa yàlla màggug bisam ma di màggug weer ci doomi aram am atoo fa yàlla wakala manna lima an nutri yàlla wakala manna sa من زود وزد أن نلقي الله نبي جفك ورلني جنة لبنيول لفنيول بكل بلي وخدي وخذي فلا إله إلا الله ورلني جنة موسى لبنيول بكل بلي وخدي وخذي فيا الله موسى malaaka ñëw xaddanam tabal ca yaari loxoom raxas ko yoo ëpp ko ikam mooy waare yàlla malaaka ñëw xaddanam tabal loxo raxas ko raxas ko yokku ko itam yàlla xaatim ko xaatim ko tampe ko tampe ko baatin ba pesam watu Mustafa yàlla teral na ko fi diwaani yàlla xaatim ko ko tampe ko إنهم يسموه بجني ملائكة يا الله بجني ملائكة سيدنا محمد يا الله بجني ملائكة سيدنا محمد درجة رونالين بجني ملائكة سيدنا محمد درجة رونالين بجني ملائكة سيدنا محمد درجة رونالين ni malaika Seydina Muhammad sa daraja raw na leen ni malaika Musa raw nga leen raw na leen ni malaika Musa raw nga leen raw na leen ni malaika xayral wara sa daraja ëpp na leen junni malaika musawara nga leen ni malaika musawara nga leen aw nga leen ni malaika malaika malaika malaika Cheikh Mbacke euh, yaakaar naa ne fi mu ubbee soo gisee usni neex ma moom ni mu koy jànge harmonie bi dafay mel ni dafay jàngaale moom baxru bi ci biir xaside gi sëriñ baa ngi wax lahu kalaami wa sumti wa huwa yulhimu nii ndax wabil busharaati duunal kaddiyaati nii sama wax sama noppi lépp jox naa ko ko ndax moo may yenkewal tool toolum naataange bi nga xam ne nag ndax gis nga bayit wu njëkk wi dafa jël ci sóoratu tayli ràbbe ko ci biir xasida gi moo tax mu ne usni ala man bi fatxil xay bi yuftiin waaye wa artaji minhu busra sóorata tiini te yaakaar naa ne eh, fan yi rek ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi eh, saase ngi leeral eh, sóoratu tiin ak waat yi ci suñu borom waat ci gën gi anam yi mu bind doomu aadama ak doomu aadama it bu jugé ba pare ba war a dem ci suñu borom moo tax sëñ xaadi macha allah yàlla ko yàlla gën a dolli wér euh, may ko mu mu yeggalee gis naa léegi sëñ Basiru Silla daal di dugg si ak sëñ dàmbay macha allah yàlla yàlla gën leen a sàmm ndax ñi ñu yàgg ak sëñ Xaadim lañ te ñëpp a ngi bëgg maa ngi jot ay message yu bari ñoom sëñ Moussa Mbacke Gorom di sama xarit ne ma tey nag sama sama jànkat nga dalal ñoom soxna maam Marème Bousso waaye ma bàyyiwaat ak euh, Sofia ndax euh, kii euh, oustaz. Mhm. yaa ngi wax léegi yaa ngi yónnee léegi bataaxal waaye loolu tey yow laa koy cërale. <laughs> man tamit ndax ki ñu ki ñu dalal tey moo ni toll waaye bu Sofia ñëwee parteem ba noppi <laughs> am nañ question yoo xam ne bëgg nañ ko ko poser. Mhm. ku am parcours bu rafet la ñun ba ñu koy topp. fu muy jàng ñuy ñu du fa dem mm-hmm. loola booba du jamono yu yëpp mm-hmm. xam ne liñ daan xëy suba li ñuy lijjanti rek mooy fan la xaadim ngii di jàng ñu dem fekk ko fanaan ak moom yàlla mel loo ko ku ne mën koo yëkkati neex na ma lool sa ngub jigéen waaw ku ne mën koo yëkkati boo ko yëkkatee léegi mu jóg ànd ak dis ma terewul nag ba tey buñ paree am na ñuy réglement ak moom waaye daal ku ne mën na koo yëkkati foo ko jëm loo it mën na faa jëm nag loolu la ko yàlla def ci moom muy ak woyof